بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا سيدي أبو العباس أحمد التجاني وعن وارث سرهما شيخ الإسلام وسعادة الأنام سيدي الحاج إبراهيم نصر همة برهام جس احضري لنا في هذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد عندك شيخ إبراهيم رك تريه لبي مينيل المفاز بالعود إلى الهجاز جرم بين الدرس يا كرنا فين رمبو بسنجا شيخ إبراهيم ينغتو كم ينغتو في مكة المكرمة بغ بغ دم مدينة ديسان ma nga jidda waaye xol bee ngi feebar bàyyi ne histoire am lu yéeme la qalbi marid qissati ajiba jëkk ba yàgg kii tekki jëng yi pour mu mën a ziyaare ji yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax fi ñuy tàmbalee tey mooy assafaru bi tairati ila al almadinati almunawara tukki ci avion jëm madinatul munawara شيخ الاسلام مولانا علي ابراهيم من لا جئتك ناكات الى خير الانام كي گن تي مبند في طائرا مير موم ماي ادي افيون هو واو مير موم ماي جناو يعني دغو تي افيون ماي كو افيون هو واو بفضل خالقي تي گنيلل سما بروم اتيت لا ديك زائرا دي ادي زائر النبي صلى الله عليه وسلم داخ بغوناكو ميتي لول waaw bëggoon naa ko mu métti lool ma nangu dogal yàlla yi rek wax na ko ca gannaaw laakin ni ta tatu rasi dahra taxta almaqadiri wa an fi l xeyra loolu la waxoon bàyyi na abdusalaami abdusalaam abidurahmaani ku ñu wax abdurahman mahmudu ku ñu wax mahmoud bàyyi na rufqati ñee xam a gungeekat ilal adnaani jëm ci ki gën ci biir adnaan yonentu yàlla muhammad ñooñu ma gunge mm. waaye biñ ma gungee gungeexee mm. dama fa fekk suma waaj mm. bàyyi ne sami yu waalidi kiñ tuddee sama baay salilu xaali nga xam ne ndeysaan doomi suma mbokk la laa zaala yàlla bu mu dañ yaalu di aji kawe addahra diiri jamono lil maali ci pays kawe dégg nga ko kooku nag xaw ma kan la wax dëgg yàlla bàyyi na lillaahi ñeexal na yàlla xaqan ca dëgg-dëgg wa xamittu te sant naa allah yàlla lim la bëgg wax fii rek mooy sant naa yàlla dëgg-dëggi sant te sant naa yàlla it dëgg-dëggi sant ñu ne ko lu waral ngay sant yàlla ci façon bii ba ku la dégg xam ne xam na lu xew mu ne fa inna nafsi naka sama bakkan bii di taalibe bi ruuxu bi adrakat jot na mun a xaa mboolem bi bétam ndax lii laa doon sàkk man de lii laa doon sàkk xol bi feebaroon wér na jéng yi tënkuwoon tinkeeku na ñëw naa ci yonantu bi sallallahu alayhi maa ngi nii kon nag fa inna nafsi adrakat mun a xaa Cheikh anhu mu mel ni dafa ñëwal yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi dafa egseeg xaal gis nga bëgg a ñëw gi xam nga bàyyi wax na la ci lisaanu si luxatul mu wallada loxo luxa olof ne la bëgg naan gee ñu mandiloo ñun bëgg naan gi moo ñu mandiloo bu ñu waree naan duñ fa ne nga yëg ne cheikhul islaam bëgg gi mu bëggoon a dem Madina tax na moom nekkoon na ma Madina ba pare moo tax bu boo duggee avion ba pare ñëw Madina foog mu far foog mu far mhm. moo tax mu ne la wa jituhu ma dikkal yonantu bi mhm. is jituhu ba ma ko dikkalee ka an nii mu mel ni man maa jituhu ma su ma koo dikkal xattu mhm. mukk walayta an nii ellente hoon muy man ndeke du man waaw ellente hoon muy man waaye ndeke du man mu ne man ndeke mosuma dikkal yontu yàlla Muhammad ki doon kii fi ñëw tay moom mosu fee ñëw ñu ne ko lu xew alaaji ibrahima mu ne man kat damaa gis ne la ma tajalla bi yonentu ne tëll ba ma egsee yonentu ne tëll surtout damaa mujj kal atfaali comme gone man alaaji damaa mel ni xale wajëttu fekk naa am naa boo xam ne laysa min ahwaali bokk ci suma haal moo tax xaal yi nga gis taalibe yi di tasaaroo di jàllar bi di toj di mbëkk si karkat yi yëpp Mm. alaaji ibrahima ñes moo leen daqaar fuuf mm. ndax xaal yëpp ci dënnam bi la daje woon te yëngatuwul binni rek garab yi wow radiallahu an cheikh al binni rek géej yi di ñiis waaw te mu ne woon tekk radiallahu an bàyyi ne wajadtu xaalan laysa min axwaali moo tax man damay wax ne ku yaxal ci géewi zikar génneel xaalis su mi sa yére yi nga may ko zikarkat yi bu leen dóor mm. bul dóor waaw su génne sa xaalis may naan wala nga clignoté fi nga toog amul problème clignoté ba mu neex la Cheikh Ibrahima looloo ko daal ma tajalla surtout kal atfaali wajadtu xaalan laysa min axwaali bàyyi ne ndax la zamani taqoon taqoo woon na ak man nazrun benn nisër bàyyi ne wanaaru shawqi te safaraw suma cofeel gi te darramat ma ngay bérex bérex wa surtout ma mujj fawqal maxqi ca kaw effacé wu gis nga bu waa ji éegee ca xadratul fannaa yi ba effacé wu nekku fa alaaji ibrahima ne kooku foofu la mën a em man dama kawe woon foofa man nag fu kawe foofu man de xaw ma foofu fan la laa ilaha illa allah ndax ñun liñ xam mooy xam ak ñàkk bàyyi na mu ngi óogoon moom ca kaw ñàkk la éeg moom waaw wa surtout fawqal maxq mu ne ndax sabaqa lii jiitu woon na ci man nazrun nizar na isa ataytu bi ma dikkalee daaral xabibi kërëg yonantu bi soppe bi sumtu danaa or ori naafila aw sollaytu wala danaa julli julli naafila bàyyi na woo jitu ma dikk maa sumtu musuma fee or ori naafila wa ma sollaytu te julli wuma fi jullig naafila lu ko waral xanaa am na cause am na illa mu ne li anna ni ngir man Ibrahima Niass is jitu ba ma ko dikkalee rek wa niitu dama néew doole lool lool lool lool وضعفا تويلتوي ما عليهم دي الدنيا هلين حرجون بين أهرا أي غر لنيو متى أختو قمن نيوم قد خرجوا جن نيو عن حسهم تسين يقا دوت نيوم بروم يقلين يقل يقجي وي جمو جا جمانا جوجا وطا بكر دولن توب نا حضر أبو بكر همو رضي الله عن شيخ الإسلام دنگ باي شيخ إبراهيم نوايا أم بروليم لكن نوايا لفنا من أقضيه بعد العودة su ma delloo danaa ko fay ilaa diyaar yi ci suma kër rahma raghma xukumil iid yi ànd ak toroxtande bakkanab atte feet giñ ne parce que lu tax mu ne ànd ak toroxtande bakkanab atte feet giñ ne mooy daf ko bëggoon a tombeleeg jamono aj gi nga xam ne am na weer yoo xam ne promotion la boo ci defee jëf jëf ji na ko yàlla di fulee dégg du ma ne ne am na place yoo xam ne boo fa jëfee hmm. ne koy yàlla du fule demet demet demet Cheikh Ibrahim ne ànd ak fii laa ko bëggee woon hmm. ci jamono feet gii ñu ne hmm. dégg nga waaye mënta ne loolu moo tax mu ne feet gi mënu ci dara feet gi bëggoon na ma def ko fi waaye gi mënu ci dara mënit mënuma ci dara parce que awuma ñu ko ban feet ban feet yow Alaaji Ibrahima aj gi jeex na ba yow jugee nga Makka Makka jëm Jedda mm-hmm. jugee Jedda ñëwaat ci yonantu bi ban feet mm-hmm. mu ne liqaauhu iidun mm-hmm. dajeeg yonantu bi jahran nga di ko gis mu di la gis ban feet la di wa ayu iidin ana ban feet misla liqa liqaail Mustafa al Mahmudi moo mel ni dajeeg yontu yàlla Muhammad mi yàlla sant ban feet moo mel ni moom te mu ne bi ma dajeeg moom la fa kaw naa la ko nettali ñu ne ko waxal yow la ñuy dégg mu ne wa mokkal na rupp tuur suma tuur suma doju tuuru siinaa wi daf koo mokkal rupp sama foofa isnadiaan yi ba mu déyaaleeg man fasirtu Moussa mu mujj di yonentu yàlla Moussa di waxuwa ndax moom xar saafaani moo ma jox lenge ndax moom xar yi jox ma ديسان لي يونت يالا موسى ديالي بروموم تي تور سينا يالا رانغال كو يام كو رانغال على ابراهيم ما ديالي يونت بي صلى الله عليه وسلم مو رانغال ما يفي باسكو موسى دنگكو نينا موم بيمنا ربي اريني انظر اليك يالا نكو لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه شيخ ابراهيم لولو كده فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا بان ودك توري ثم إذ ناجاني جعله دكا ودف كل ميلو مكو يمنو جبان ودك توري ثم إذ ناجاني فصرت موسى وهو قد صافى شيخ إبراهيم لو wajimtu man nag ma wedam لا lool laa aquulu mënumaa wax laa ashiiru mënumaa joxoñ sax junji dara mënuma وصار كل سما لب دال دي مجي احمد البشير دي احمد مي يالا بيغال كوي بيغالاتي نيال كيب كو كنا سما لب دي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله باين فوف رك اقول ما نغي واخ سخنان ما نغي واخ نان هل ارجعوا للعوالم ومن ما من ندخ دانا دلو تاع بي maanaam la awalim xam nga bàyyi na la ne wax na la ne alamul akbar mooy sa jëmm ji yow léegi moom yëgëm gi dem na ba génn aalamam bi mu ngi feneen fawqal mahaqi la nekk léegi léegi foofu mu nekk ndax dana fa tàggarti ko pour delluwaat ci moom mu tuddaat Baye Niass dëkkaat Taïba Niassène alaaji Abdoulaye di baayam maam Assa Diankha di yaayam dégg ko mu daan baagante diggante Koosi ak Taïba Niassène sanc Medina di baagante diggante jàkka ja néegam bàqoo boobu la mu ne ma ndax dana delluwaat foofu bàyyi ne am atafaana wala boog dama fi jaaree jeex dama fi jaaree dem Ibrahima dafa yomb di jaaree noonu dem rek mu ne ma dem dellu ci si alam bi wala ma dem amu problème man lam ubal faale huma lillaahi mi ñeel aji yeddu sama lu neex waaye na wax man alaaji Ibrahima ay ay ko man maynuma bàyyi ne wala mu afiq tiqihuma jugewuma ci xaal boobu min sadmati liqaa yi ci conginuk dajee gi jugewuma sa xatta sabaax ba ca suba sa ca ëllëg sa kaana la nekk lii ñeel ma jalaa yi suma wuuri ma dool di wuri nag yëg na maa ngi fi dégg nga xoolal fi mu yëgee ne mu ngi fi cheikhul islam alaaji ibrahima radiallahu anhu dajeeg yonantu ñàkk ci biir yonantu sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne lu ëpp bés lëmm Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mi ngi ci alam bay fokk sax moom du delluwaat ci alam radiallahu anhu Cheikh al Islam waaye nag yàlla foog mu unjul ni ko ndax ñun dañ koo soxla dégg nga kon loolu mooy safar ila euh, bi taayira ila madinatul munawwar ñu ñëw ci rujuu bi ila jidda cheikh al islam mawlana alaaji ibrahim mu ne ar rujuu ila jidda pare na madina ma ngi delluwaat jidda bëggu ko de bëggu ta dem de dafa ñàkk pexe rek mu ne antu pare naa kat dogu naa raaja an di aji dellu jëdda wa qalbi sama xol bi baaqin aji des la mu indal madina ci madinatul munawwar ilat salaaqi jëm ba bisab dajee ba yowmal sama xel bi xol bi moom fii lay des ah. bàyyi ne li juddatin ñeel jidda maa ngi nii jidda waaye wa inna saqimu damaa feebar de damaa feebar wéruma mm-hmm. bittu fanaan naa ka mu mel ni man mm-hmm. mutlaqan ku ñu joyal laa ajimun ci ak ñàkk mm-hmm. man damaa fanaan mu mel ni ci hadara péeb adamu ci laa nekk péeb ñàkk ci laa nekk di fii xolal ba léegi congeruk xaal gi baaxagul Cheikh Ibrahim ne aqulu maa ngi wax sax naan in amut su ma fi deexee daxaltul janna damay dem directement aljanna wa in a ub su ma delloo ba Sénégal adaxaltu ma dugal xaw mi sama nit ñëpp janna aljanna amin alhamdulillah ñibbisi na di bàyyi ñibbisi na de kon yaakaar xam de waaw su ma deexee direct aljanna su ma delloo mboolem ku ma topp ma dugal la aljanna waaw ndeysaan laa ilaha illa allah ndeysaan cey cheikhul islam cheikh ibrahima mu ne maxtartu man tànnuma bëgguma dara waaw gars yi dañuy jaay mën a xaal rek nañ déglu bàyyi mu ne maxtartu tànnuma dara laa uridu bëgguma nammuma dara maa lépp loo xam ne turidu nammeef na man li gars yi di bëgg bëgguma bëgguma waaw ayaa habibi hey yow sama soppe bi zaal lii mooy daje gii ak xaal gii may yëg alladi mooy li nga xam ne uridu moom laa bëgg naa lay gis rek bàyyi na mu dem waxta sabaa yi ci waxtu suba xottu ma dellu lil awalimi ci aalam waqumtu ma daal di jóg lin naas ci biir nit ñi qiyaama naimin comme jógi ni koo xam dafa nekkoon ci ay melaw la ilaha illallah cheikh ibrahim bisi lëmm ci madinatul munawar mu nekk ci Hal, ñew jidda bi si mu nek ci hal alaaj ibrahim ba sa ñetteli fan ba cheikh ibrahim mu ne ma jog yek ne dafa mel dama nekkon si ay nelaw waye jamono yi baye di wax xam nga hal bi cheikh nekkon da fay uteeg ñun kon suñu hal bi ñun ñun bu ñu fi lañu nekk di bérébu cheikh ibrahim man na nekk ci bir hal bi te du tare muy ak borom xam-xam yi di leen jommal fekk ci digg hal bi kenn du ko yek mi ngi gaay waaw mi ngi leen di wan péeb yàlla bi ni mel moo tax waxtu wii Cheikh Ibrahima nekk kom dajeeg rek da mel ni paa bi doon wax naan eh, nee waaw nee na hmm. waaw waaw fekk bàyyi mi wax téléphone rek naan waaw rek mu xaal am fatu naan nee na waaw nee na waaw di tëb di fecc nee na waaw nee na waaw moom noonu la amee fatu moom waaw nee waaw nee waaw waaw nee na waaw xam naa ne jamono yii ku nekkoon ak moom dana doy waar lool cheikh ibrahima radiallahu anhu mu ne lam yabqa desut lil marad ñeexal feebar bi ma daloon aynun jëmm aw athar wala jeexit subhaana tudd na ma sell ak man ki nga xam ne yab aasu mooy etle fii lamxil basar di nga ko ci génde ku bët lu mel nii waxoon na ko ci Guinée aéroport yi yoof la dem dugg avion wàcc si saa si wàcc Guinée bàyyi na fa subhan bi yoofin dahwatan bi Conakry fa subhana man ma shaa alayhi qadiru suba teel maa ngi yoof yoor yoor maa ngi Conakry tudd naa sell ak waa ji nga xam ne lu ko neex lay defee lu ko neex ndax moo ko àttal Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu ne waliltu nekk naa jinaa lil mataari ci aéroport bi عندي نكون فمن بابا بابا مكرانتا على الشيخ ابراهيم دي واحد رحمه الله بابا مكرانتا باينه ولم يزل يلا بوم دج مون بابا مومو بابا دي بنتو لي كل خير نيول نيول بيب هي ندسان باينه والله مجنا لي غمزي نيال سما سوبيكو غوغو حال بما نيكون الى العشاء باتا غونس waaw ila la isha ba ca ngoon fiitu yal na baxaleef ma min burudatil masaa'i ci seddu ngoon si ndax ña seen seen ñun seddal yàlla jégal ndeysaan Cheikh Ibrahima bi ma xaal bii dalee Braham Diop moo ñu ko nettali mu ne ci aéroport Jidda la dalee baay radiyallahu anhu mu ne Cheikh Ibrahima ci saa si yaram bi dafa tàng ba tànk yi bañ mënatut a dox mu ne bàyyi dafa mel ni kuy toog rek wototu dugg ci benn néeg bu ndaw benn pantre bi mu fa duggee ci saa si mu ne benn waaye ubbi pantre bi rek dégg nga daal di ne ko lan la lan la daal di rocc ci benn pikiir mu ne bàyyi bi mu koy nettali daf ko pikiir baa ngi toll ni sama loxo bi mu ne mu ko dabaas daal di ko raay ne ko allah yarhamka bil aafiya na دينغوك الله يرحمك بالعافيه ما يجي يقول شيء دق دق يلنا لا يار يرم عندك دينغوكو مو بالا انا مو ويرال لا رك يلنا لا يالا يرم لغي نك كيكا ديكلون نوم لا شيخ ابراهيم دي نيتالي باين شخص بن جمو اتاني ديكل نما من رجال الغيب توكي تي غوري غيب يا امنا لين دي نا موي سين جيت ييب من قد عادني فيزيت نما Set nama beda bi daawatin nyan min qalbin tukkee ci xol ñaan mhm. na ma ñaan goo xam ne ñaanal na ma ñaan goo xam ne mhm. wér na ma ne ci xolam mhm. la ko jël lan ya la la wax yow mu ne def na ma yarhamuka ilahu bil aafiya yarhamuka yal na la yàlla yal na la yërëm al ilahu bil aafiya ci mba dégg nga ko mooy wér rek qad qaala na shafaqatin ci raqiyatin bimu koy wax rek ak nim koy waxe ñeewante mu ngi ko àndale ci lay wóor ki dafa am ñeewante ci ki ñaar waji kan la yow alaaji ibrahima mu ne ah khatara khatirna na ci man khatara rot ab khatir bi ci man te waxon na len al alxaatiru ma min allah ilayk nabi an ann zaaka naka kooku xadirun xadir radiallahu anhu am ñu ne yonentu la Cheikh Tidiane ne waliyu la ci wàllu yàlla bàyyi ne même bu dee xadir la man agna nii doy na ma alxatmu tijaani aji kas aji wilayatul muhammadiya kay ko jóg biir tijaanata ca Algérie alwazaru kii wéeru waay bi mu Cheikh Tidiane man moo ma doy dëgg Cheikh Ibrahima teggeen ji tey rek lay nit di ñàkkee ngor alaaji Ibrahima radiallahu anhu toog ànd ak nit muy oote ay maqaama di wax ci boppam ak sëriñam lu ko neex mm-hmm. wala sëriñ bi di wax lu ko neex mel na alaaji ibrahima moom mit mi joxe teraanga ji moom amatut dëggal alaaji ibrahima radiyallahu anhu fi ko xudar feeñu ak fi mu tegee maqaamam Cheikhu Tidiane dafa xam Cheikhu Tidiane mm-hmm. ñàkkee teggin baay ji ñàkk xam baay la rek radiyallahu anhu mm-hmm. kan jàng baay ndax ñu man koo jox ci rëb kooku mooy cheikhul islam maolana alaaji ibrahima radiallahu anhu foofu la pare si jidda cheikh ibrahima ne asafaru min jidda ila kënu rajaan maa ngi jógee jidda maa ngi delluwaat kënu parce que maa ngi ñibbi bàyyi ne saraytu daw naa dem naa tairan ci avion ilal xartuum jëm xartuum waaw maa ngi jëm xartuum de bi nazri ci xool gu ma nekk di xool al mawjuda mbindee fi kël maadum ñu mel ni ñu ñàkk ba léegi xaal bi wàccagul de bu waxee rek nga xam ne xaal bi wàccagul man maa ngi gis mbindee fi mais comme maa ngi ci aalamul adami kenn amut man rek maa fi ne jitu jënay na dikk naa jënay na ca Soudan wa atar wa ataytu Borno ba dikk dëkk bu ñuy wax Borno moom la ba tey foofa la bàyyi ne uyuunu ahbaab yi bëti soppe yëpp tarlu ñu ngi jax ilayya fi man ñëpp ak ma teg seen bët mbooloo mi kenn xamul nu mu toll waaw te attention de Soudan ay sang ay surafa ay borom xam-xam ñoo xam ne bu doonu toon ak bàyyi du ñu am sëriñ ñoo fa ne bàyyi ne uyuunu ahbaab yi ilayya بين قد تكونا إكنا فوق برنا تكو برنا بالطيارة تأفيون dégg nga ko maa nga tiim barno mu uur ma ne fii mooy barno sama soppe yaa ngi fi aduu li ahbabin maa ngi ñaanal ñaan ñeel soppe yi biha foofa axyaar yi ñi nga xam ne ay tànneef lañu ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yal na yàlla nangu ñaan bàyyi ne arrujo ila kënu baadal hajji dellu kënu gannaaw aj ba pare cheikhul islam mu ne وجئت كانوا دكلنا كانوا وبها الأحباب تا نكنا فصفيرة تنك نوم من طيب ختم الأولياء تيك سلك أجي كستجي ولاية موشي طريقة تجان برك موشي طريقة تجان برك دنگا من موشي طريقة تجان برك نم نوم qad taabu ci lañ teeye ci lañu baaxe ñoom ñëpp dégg nga nag da nga gis mu indi fa benn raa raa waqat ataa la dégg nga mm. ci indi noonu mm. njumte mbind la mm. waqat ataa te dikk na ma min kachina jugee kachina al amiru buur ba osmaanu ku ñu osmaan wal qudaatu ak seen xaadi ba wal waziru ak seen ministre ba ñoom ñëpp dikk nañ pour ziare sama fekk sama kanu dégg nga wafdun délégation kabirun bu mag nasalul ilaha maa ngay ñaan yàlla an yurzaqu mu wërsëgal leen karamatan ay teraanga jaahan ak daraja jaa dikk na al amiru buur bi alxaaju abdul malik ku ñëw xaaja abdul malik dégg nga ko ajiba im na rabbi suma borom min wu ci moom wala nga ne ajiba imul kiimaan rabbi ci suma borom minhu tukkee ci moom parce que chabun waxambaane la naasikul koo xam ne ku sóobu la te saaxaanut ci sóobu gi mu boo gisee rek nga xam ne mi ngi ci dégg nga ko Cheikh Ibrahima mu ne Mouhamadou Gibrima zul maarif borom xàmmee yi xam la fees dell fekk naa ko shahwatan muy bànneex bànneexu kan kullu xaarif képp koo xam ne sang nga rek mm. Mouhamad Gibril su mbégte la mm. Mouhamad Gibril mi xam nga ko kii moo taalif benn téere ci salaatu ala nabi mm. maam Khalifa ibnu alhaaji Abdullahi bi mu ko gisee dafa woo alaaji Ibrahima Niass da ko Ibrahima mu ne ko ah mu ne ko xutbaaneetu gi ngay woote gis naa waajoo xam ne kooku moom bi ma daree gis waliyu ba léegi ba ma daree gis xutbu ba léegi ku mel ni kii maa koy door di gis ngir nim fessé ci xam-xam nim mel ci maarifatu billahi ak nim bëggé Cheikh Tidiane bo gisé lim def ci salatu ala nabi di yé Mouhamadou Gibril ma ngi bàyyi na ko ma xool téere bi mu gisee téere bi laj ibrahim muñ muñum gu jekk googu ne ko ay khalifa ki sa talibé la bu fi ñëwtee ziare na la ko indi allah akbar cey alaji ibrahim Ñas bu fi ñëwtee ziare rek na la ko indi kooku mooy Mouhamadou Jibril bàyyi na wajattuhu shahwata kulli xaarif madaxani tagg na ma way yii wër naa ko ba sonn naa ko gis nag Mouhamadou Jibril ma lim tagg bàyyi madaxani tagg na ma jazaahu rabbi xayran yal na fay ko yàlla sama borom yal na ko fay aw xiw fii kii ci àdduna ji wa tilka ak àllaaxira wa kafaahu te yal na ko fegal dayran boo lay mel la يحيى كني وخ شهيا يا كذا نك نونو وينما تغنما هو الذي كوكوي كيغا خامنا قدمته اخذ جابنا اينما اخذ جم سما جلو تما طريقه تيجان من تي لا جاب دي لول بايام كاي وون رك نكو طالب تيجان لا والطاهر القلب اجلا جقل الجميل اجي رفت الجميل الظاهر كدا اجي رفت dégg ko zahir ko ki hit mara hadi tagna ma bi awalin ci njëlbeen ben bima fi jaar di dem wa akhirin ak mujj gi mooy bi ma fi jaaraat di ñibbi tam waaw xam ne tahir may gala yox motax mu ne wa tahirul xalbi naka ko cheikh tahir may ga am ko fa nekkoon ku ñuy wax cheikh tahir deng cheikh ibrahim radiyallahu anhu xamna buñ ko munta jeexal waaw nañ am fofu ba après ñu gën a téere bi incha allah yal na yàlla may ñu dégg dafal ñu topp bu ñu ñëwaatee dalee fi Cheikh Ibrahima jugee kënu jëm Kawlax incha allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi xaq qadri miqdaari al azim seen mbokk Ahmad Dame ñu ngi la Sénégal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu